salaamaaleykum internet bpactu.com ñi ngi leen di béggee bu baax di leen jaajëfalaat tey mardi 12 novembre 2019 ñu ñëwaat ak yéen ci seen ay yéenekaay ma ci ànd ak Amina Ndiayène bi maa ngi lay siyaare Amina. siyaar naa la Omar di siyaar képp koo xamante ni moo ngiy bëgg saa su nekk. noonu la demee dañu koy ubbee ak l'observateur Amina Ndiaye mu xëy fësal. Aïssata Tall Sall Amina Ndiaye. Euh, journal l'observateur Aïssata Tall Sall la xëy fësal moom mi nga xamante ni nag moo quitté woon opposition bi ñëw rejoindre APR ci jamonoy élection yi moom nag boobu ba tey mi ngi doon daj ay commentaires yu negatif ci réseau sociaux yi ba tax na sax nag jeudi bi passé ñu mën mën nañu jàpp ni kii nii di président de la république nommé na ko envoyé spécial du président de la république mu nekk loo xamante ni nag xaaru ko xaaru ko woon mais mu nekk première victoire lu mu xaarul woon la ñu fal ko ko ñu koy ñaanal rek mu woyof ci kawam torop mbirum 750 balu fetal yooyu ñu jàppoon Amina Ndiaye ci piir ba tey journal bi mi ngi ciy def ay njàngatam Amina Ndiaye. 750 munitions yooyu nga xamante ni moom la yoon tegoon loxo ci biir ba brigade de recherche bi nekk Colobane mujjee woon nangu affaire bi ngir lan ngir lan enquête bi gën a mën a gaaw ginnaaw loolu nag tey noog ñu yëgal ni jàppan nañu ñaari nit kenn kii dafa nekk ci wàllu euh, jaay ay balak affaire yooyu noonu fii nii ci dakaar keneen ki nag mooy ki nga xamante ni moom la daan jox moom koy jaayal ñoom ñaar teg nañ leen loxo sans. kon sans oublier ñi nga xamante ne ñoom lañ njëkkoon a teg loxo ñu ñuy yëgal ni defeere euh, nañ leen démb ci lënd bi. defeere leen démb ci lënd waaye yeneen juróom benn personne yi ñu defeere Amina Ndiaye mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo doon indi dorog bi fii ci géej gi ba ñu jàppoon leen ñu ngi xamal ni que ñu ngi ci prison bu Rebeuss Amina. ba tey ci wàllum dorog 700 kilogrammes yi nga xamante ni moom la yoon tegoon loxo ci géej gi six sept lañ ci jàppoon mais six si mën nañ ne tey jii defeere nañu leen ci prison bu Rebeuss. ñu ngi xamal ne am na ci benn doomu Sénégal ci ñooñu ñu nga xamante ne defeere nañu leen ci prison bu Rebeuss Amina Ndiaye. ba tey ci journal bu l'Observateur Amina Ndiaye les cinquante présumés cybercriminalité yooyu nga xamante ne jàpp nañ leen ba tey journal bi mi ngi ciy wax Amina Ndiaye. affaire cybercriminalité la cinquante lañ tegoon loxo yoon semaine passée ngir lan ñoom ñoo doon nekk ci réseaux sociaux yi di ndax nit ñi di détourner seen ay compte yëpp ba xawoon na sax yóbbu xaalis bu bari yoo xamante ni orange ñoom ñoo ko moomoon tey nag ñoom ñuy yëgal ni ñoom ñooñu mujj lañ nee na defeere defeere nañu ñoo xamante ne ni Amina Ndiaye ñu jar a defeere lañ parce que nag ay milliards nga jël ko ci yëfi jàmbur ci njuuj ak njaaj jar nañoo defeere te li ci gën a doy waar Omar mooy cinquante yëpp nigérien lañu mais fii nii lañ doon defee njun jaaji ci suñum réew. Amina Ndiaye Sénégal doomu sénégalais du def yu bari waaye ci wetam la ñuy defee yu bari moom loolu daf ma jaaxal waaye xeeñ na ak xeeñul am na ak amul Amina Ndiaye coowal pétrole. mbirum pétrole la de Amina Ndiaye Ibrahima Mbodj ak Jibril Kanouté ci nañu ay kàddu Amina Ndiaye ginnaaw bi ñu jàkkaarloowee ak juge bi boo wax fa li ñu fay wax Amina Ndiaye dama lay bàyyi nga yeggali ko. jot nañ seen convocation dem nañu wuy ji def nañ tamit li nga xamante ni moo di seen témoignage ci affaire petro bi nga xamante ni nag yoon bàyyiwu ko benn yoon ginnaaw loolu ba ñu génnee presse bi nga xamante ne ñoo taxawoon di leen ni ngir lan ñu def benn déclaration ñoom nag nee nañu li ñu amoon pour wax ko yëpp wax nañ ko ci kanamu juge bi te ñoo ngi koy dégluwaat saa bu leen convoqué rek ñu ñëwaat mais nag du yem foofu jeudi 14 novembre incha allah amaan na ñeneen ñoo xamante ne juge bi war na leen a convoqué ku ci mel ni représentant BP fii nii ci Sénégal war na ñëw def témoignage am ci affaire Petro-Tim bi. daal di demee Amina Ndiaye kon mu mel ni coowal pétrole moom dañoo bëgg rek. ñu am fuñ ko féetalee ci réew bu Sénégal ba tax na ku ci laal dinañ la woo waxtaan ak yow Amina Ndiaye nañu jàll nag ci journal bu stade. njaayeen bi journal bu stade nag dafa indi li nga xamante ne ni moom mooy préparation match Sénégal ak Colo Congo Congo la kay Thiès lay am Amina Ndiaye 19h la match bi di am vendredi la incha allah da ngay stade. dinaa dem kay bu neexee yàlla nekk na match boo xamante ni ñëpp a koy xaar kenn bëgg koo rate mu nekk nag Sénégal ak Congo ñu war a jongante fële na le ci Thiès démb ñu doon amal seen premier entraînement mën nañu nag 19 lions dong ñoom ñoo fa présent woon mais quatre ñoom absent nañu ku ci mel ni Sadio may ñaa Edouard et Loum Ndiaye ñoom ñeent ñëpp. kenn tegu leen bëgg ci séance d'entraînement yi nga xamante ni moo njëkk ñu ko doon amal démb ñoom ñëpp nag waroon nañoo daje mais kenn gisu leen fa. mu mel ni loolu la ñu journal bi xamal Sadio Mané la Mbaye Niang Edouard Gomis moom ñëwul Lum njaay tamit ñëwagul ci entraînement yi waaye ba tey rek ñi ngi seen ay wàccaay di waajal seen match Aliou Cissé nag wax na ci li nga xamante ne ni moom mooy 11 de départ naa Ndiaye. 11 de départ bi nga xamante ni ba tey dafa causé problème kii nii di Aliou Cissé mu ngeen wax nag comme na woon fa woon rek Gomis ak Mendy ca camp ya Mbaye Niang ak Famara am point. mais kii nii di Ismaïla Sarr mi ngi xool ba xam dina nekk titulaire am déet. loolu la ñuy xool ndax Ismaïla Sarr dina démarrer ci match Sénégal Congo wala am déet waaye match la boo xamante ne nii xale yi Amina Ndiaye équipe la boo xamante ne nii bu A ñëwulee même bu bee ñëwee A mën naa bañ a feeñ ndax ay xale yu jàmbaare ay xale la yoo xamante ne nii am nañu jom fulla fit ak fayda ay gaynde daal lañu ay dëgg-dëgg gaynde lañu nañu jàll nag Amina ci journal bu record mi nga xamante ne nii mun naa ko tuddee sax un journal deux en un day wax ci football day wax ci làmb Amina. journal record tey nag mi ngi xëy di fësal kii nii di saajo maane mi nga xamante ni journal euh, stade nee na gisuñu ko ci première séance d'entraînement yi ñu doon amal fële na la ci stade Lat Dior bu cees mais nee nañu nag record mi ngi yëgle ni moom Sadio maane dina débarquer mardi bi fële na ci Thiès fekk beneen entraînement. noonu la daal di demee moom bu ñëwulee A dina ñëw B réewam rek moom moo ko ñor ba fu ko réewam woo xanaa mu tardé waa ji na yegg waaye ba tey ci équipe adverse bi Amina Ndiaye Congo seen attaquant vedette muy Boufouma moom nag dañuy laajte ndax dina jouer am du jouer Amina Ndiaye. loolu la record di laaj ba xam dina jouer am du ñoo ngi xaar ba xam dinañ ni ma la ko waxee woon Amina Ndiaye journalu record deux ans la day wax ci football day wax ci làmb booy Niang numéro 2. doomu dégool la Balla Gaye numéro de doomu Double Less la ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da ngaa judd fekk ngembul si sa kër bàyyi nga daal di koy jël ngemboo ko ñoom ñaan nag la ñu ne seen combat combat la boo xamante ne nii mënuñu see mucc ñoom ñaan ñëpp noo def ñu bëri Amina Ndiaye. noo def nu bëree balle gay 2 pare na fësal na ni pare na ba ko jox mu bëree moom ci saison bi Boy Niang 2 tamit yaakaar nañ ni pare na pour affronter kii nii di balle Gaye 2 mu nekk combat boo xamante ne ñëpp a koy xaar promoteurs yi tamit ñoo ngi koy bàyyi xel moo tax nag ñu naan combat bi sa inévitable. noonu la daal di demee Amina Ndiaye ay combat la yoo xamante ne nii. Euh, bu ñu tëggee yooyu le combat day nekk ay combat de choc ay combat yoo xamante ne nii bien vrai que grand contre la waaye décalage d'âge bi xawu koo bari noonu parce que lu mu bari bari matul cinq ans Amina Ndiaye li ñu magantee ñoom ñëpp seen biir lu mu bari bari bari man jàpp naa ne matul juróomi at Amina. matul juróomi at moo tax nag seen combat war na mën a neex mën nañ ni sax presque même génération la ñu ñoom ñëpp parce que nit moom bu ngeen magantewul lu ëpp fukki at rek jàpp naa ni même génération ngeen. Amina Ndiaye xale yi koo ci laajkat mooy sa idole danaan la Moustapha Guèye wala mu ni la Robert wala noo xale ay ñoom Moustapha Gueye daal jàpp naa ni ay ñoom Boy Niang ñi seetaan nañ leen te Balla Gaye 2 daan na Moustapha Gueye bu yàggul dara ci fin de carrière am mooy tax manaan ni ñu magantee bariwul waaye ay làmb yu neex la nañu dem nag ci consommé local bi journal suñu làmb Amina Ndiaye mu xëy fësal écurie Ngunjaan écurie Ngunjaan fa la ngel joonu nekk fa la ay xale yu baree baree nekk Amina Ndiaye am na ñu 9 combats 4 victoires 5 défaites mu mel ni daal écurie Ngunjaan fi mu toll nii ba seen balance daa soxla nañu ndimbal soxla nañu bras soxla nañu koo xamante ne dina leen yëkkati ci saison bi te pour cela faaw ñu amaan nag ay combat promoteurs yi gestu leen ñu mën a jugee ci balance bi nga xamante ni dafa déséquilibré ci côté défaite. noonu la daal di demee Amina Ndiaye Garga 2 muy xale boo xamante ne ni moom itam mi ngi ci écurie Parcelles Amina Ndiaye di def liggéey bu am solo waaye nag fi mu toll combat rek la bëgg moom itam. Quench daal la Garga di laaj ak ki nga xamante ne ni moom mooy doomu. Boy Kayre bi di jën Diouf Kayre muy xale boo xamante ne ni Amina Ndiaye mi ngi ci làmb di def lu doy waar ci làmb waaye nag keneen ki nga xamante ne ni Amina Ndiaye moom moo fi def lu kenn deful ci làmb moom moo fi nekk roi des arènes ñaari yoon Amina Ndiaye moom moo jugee ci capital ba nga xamante ne ni mooy capital du rail bu ñu nee capital du rail dañuy wax ci dañuy wax Mbour Amina Ndiaye ndax Thiès ak mbuur benn la Bombardier lay wuyoo moom nag am combat fi mu toll nii da koo jaral lu nekk pare na pour may xale sens pare na pour may revanche pare na pour bëri sax ak ñu musta bëri Lamine Ndiaye. le B52 de Mbour lay wuyoo moom Bombardier nekk koo xamante ni nag kenn dootu ko présenté ti euh, ci làmb ji ndax lan jaloore yi nga xamante ni def na ko comme ni nga ko waxee rek moom moo fi nekk mbër boo xamante ni jël na fi ñaari yoon roi des arènes ba ku ni jàkk Bombardier sax bu ñu la nee sa adversaire la sa fit dina ni rëf parce que lutte avec frapp moom moo ci teg loxo. noonu la daal demee amee naa Ndiaye maa ngi fàttaliku keroog combat am beeg Tapha boo gisee tafaatin ay mbër bañ a bëreeg moom ba léegi amee naa Ndiaye combat am ak Bombardier moom moo tax muy mbër moo xamante ne nii bu ngeen dee bëri dina la dóor noo toll Bombardier dina la dóor te bu la dóoree di nga di bu la jàppee fu la jëmale da nga fay jëm xanaa yàlla ñëw Amina Ndiaye waaye nag dañ ñëw ci le troisième tigre de Fass Gris doo Amina Ndiaye Gris Bordeaux mooy doomu Cikki di xale boo xamante ne nii bi mu duggee ci làmb ba léegi yàqu ci dara Amina Ndiaye journal bi nag indi ñu quatre victoire référence yi nga xamante ni Gris am na ko Gris Bordeaux moom moo daanoon Antoine Bakhoum Gris Bordeaux moom moo daanoon Eumeu Sène Amina Ndiaye Gris Bordeaux moom moo daan Bombardier le B52 de Mbour moom moo daan Mohamed Ndao Tyson Amina Ndiaye waaye boobu ba tey Gris Bordeaux mënul doon roi des arènes mu doon loo xamante ne ni jaaxal na nitu làmb yi jaaxal na waa Fass jaaxal na képp koo xamante ne yaa ngi ci làmb la moo tax Fass mënul am roi des arènes ak fi Fass toll ci làmb Amina Ndiaye waaye kii nii di Gris Bordeaux liggéeyal na Fass loo xamante ni moom ci boppam waroon naa mën a am chance su nekk roi des arènes man dama naan yàlla moo ko tuddagul mais ñii ñu teg ñëpp nga xamante ni kii nii di euh, Gris Bordeaux daan na leen kenn du werante ni euh, jàmbaar la ci làmb ku ko daan rek jàmbaar ga di B52 de Mbour kenn du ko waxati Eumeu Sène Antoine Bakhoum ñoom ñëpp ko leen daan war nga mën a jël couronne bi teg ko sa bopp mais nag dama naan ñëwagul mais nekk na quatre victoire yoo xamante ni victoire yu yoo xamante ni ñëpp war nañ ko xool Amina Ndiaye Gris Bordeaux bo te boo xoolee Eumeu Sène nekk na roi des arènes mais bu ko Gris Bordeaux di daan boobu yorul couronne bi Bombardier nekk na roi des bi ko Gris Bordeaux di daan stade Demba Diop boobu yorul couronne Tyson nekkoon na roi des arènes bi ko Gris di daan Demba Diop yorul couronne loolu moo lay wane ni Gris Bordeaux benn mbër la bëril bu yor couronne muy Yaxya Diop Yékini te combat ba matul minute dugg ak génn la ñu def mu kaat Amina Ndiaye muy làmb boo xamante ne ni nekkoon na làmb ju metti woon waa Fass waaye mu defaruwaat ñëw tegle ay série de victoire am ak ay mais nag moom année balance moo ko xaw a sonal Amina Ndiaye. amu ci victoire amu ci couronne comme ni ma ni ñu ko waxee mais nag am na ci victoire victoire bi mooy lan permettre na ko mu valoriser li nga xamante ni moo di parcours am permettre na ko ba tey jii fu ñu taxaw ni Gris Bordeaux rek ni Gris Bordeaux daan na ay naanaan ci làmb. noonu la daal di demee Amina Ndiaye waaye guy gi. guy gi mi nga xamante ne ni Amina moom moo nekk ci écurie Mor Fadam borom le roi du simpi yow yaa ngi doon seetaan guy gi Amina Ndiaye jamono ji mee di jat dëgg di jat di ñëw ci yow bu la jàppee da ngay jóg. yii guy gi koo koy wax borom le dix dixième mois àcc na ba. noonu la demee Amina Ndiaye guy gi nee na douze xaw ma nu dix mois matul at. loolu la wax Lamine nee na ko 17 mois la ëpp na at Lamine. noonu la daal di demee Amina Ndiaye guy gi nag moom nee na ki nga xamante ne mooy Gris doo daf koy daw daal moom. ci lu mu gis Gris Bordeaux buggul bëri ak moom wala Gris Bordeaux parewul pour bëri ak guy gi loolu nag la guy gi jàpp ba yëkkati ay kàddoom ci journal suñu lamb. choc la la ren nit ñi dañ ren dafa war a nekk grand contre petit Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye booy ñaar ñu yokk ci nag kii nii di guy gi ak Gris Bordeaux moom nag moo ko kobasal boppam guy gi moom moo kobas Gris guy gi moom moo kobas Gris Bordeaux muy guy gi est que mës naa bëree mbëru fas yaakaaruma ne guy gi mës naa bëreeg mbëru Fass waaye combat boo xamante ne ni naa Ndiaye ay combat yu neex la ndax guy gi ak Gris Bordeaux ñoom ñaar li ñuy njëkkante mën naa la koo wax de. lan la jàppante la ñuy njëkkante. jàppante waaw loolu mooy làmb sax faaw ngeen jàppante di dóorante loolu mooy yëngal arène bi nga dégg amateur yi du yuuxu ci kaw mais gëm naa ni guy gi at Gris Bordeaux combat la boo xamante ne dina mën a neex parce que ren nit ñi ñoo ni grand contre petit lañ soxla. te guy gi ak Gris Bordeaux tax muy neex Amina Ndiaye mooy guy gi musta duma mbër waaye mbër mosu koo duma xaw ma ndax xam nga li may waxam déet. xam naa li ngay wax bu baax jàmbaar la ci làmb moom kenn werante wu ko. noonu la daal deme demee Amina Ndiaye ba tey journal suñu làmb nag daf koy tëj ak les VIP de la lutte simple Ibou Senghor numéro 2 Ngaan ak Ada Dieng Amina Ndiaye muy ñoo xamante ne nii Amina làmb séeréer boo fu duggee da ngay xam nii cosaan neex na aada neex na Amina. surtout maa bu séeréer te ci làmb ji nga koy xamee lu simple ñu nekk nag ay xale yoo xamante ni euh, dañoo am jom saay boo leen fekkee Adrien Senghor rek ñuy def ay euh, jaloore. noonu daal demee boo leen fekkee ba fekk fa doomu baabu ngom ba Amina Ndiaye moomu ak mbayang lum ba ñu seq ko ñoom ñaar bu kii sàjjee fekkee sàjji fee ba mbëri daw Amina Ndiaye yàlla jàmm yàgg ci réew mi amin yal na jàmm yàgg bu ko defee nag ma yem ak yéen fii di la jox dig daje ba suba ci àllarba bi di ko jox képp koo xamante ni yaa ngi doon bàyyi xel. noonu la daal di demee mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allahu rabbi di leen ñaanal jàmm rek yéen bu yendu bu fanaan te ngeen yeewoo ak moom.